bi leen jiitu woon mooy le régime de Abdoulaye Wade lu nekk yàq nañ leen ko ci ay xaalis yu ñu doon sàcc li détournement qui se faisait ndeysaan yàlla ki yàlla yërëm ay ñoom dans soxo maa doon dégg ay 4000 milliards yoo xam ne euh, dégg naa ni euh, euh, Karim Wade da ko jëloon xam nga après ñu dégg ci ay comment dire ci régime Macky Sall aussi Aliou Sall qui prenait beaucoup d'argent xam nga ñii di am ay licence de pêche fii ak le régime socialiste yaa ngi dégg ñu doon wax waxu xaalis yaa ngi xaw ma yaa ngi koy fàttaliku ak ñoom Abdoulaye Baldé euh, problème mu xaalisu Taïwan boobu ak les licences de pêche yi nga xam ne feu Amit Fall xaw ma ndax yaa ngi koy fàttali. xam nga euh, ci la ci la ci la ci lañ ko doon tudd yaa ngi dégg euh, boobu boobu Amit était le conseiller fiscal de de de de Abdoulaye xam nga mu bëri woon ay coow yoo xam ne ci ay affaires chinois yoo xam ne dañ joxe woon xaalis foog naa pour ay licences de pêche donc loolu ba léegi dafa mel loolu dafay continuer ba tey ci réew mi la question maintenant est-ce que euh, opération gox yi mooy lijjën ci problème bi moi je ne le pense pas yàlla non parce que xamul lu tax parce que kaw ñoom ba bële bële passé ñoom euh, affaire euh, CREI bi nan la ñu mujjee finalement. waaw fan lañ mujjee finalement sa sa il ne s'est rien passé pas parce que. il ne est-ce que CREI bi c'est pas parce que y avait une orientation politique. plutôt mais euh, mais, mais oui forcément day am orientation politique. bu fekkee bi c'est détaché de toute orientation politique. mais am juste gëm ni dañu war a teg bonne gouvernance ak transparence waaw. mais xam nga mun nañ si toujours garder yaakaar moi ce une surprise pour moi affaire bi mu réglé wu. yaa ngi dégg parce que xam nga lu tax parce que dëkk bi dañu nekk dëkk boo xam ne dëkk masra la dëkk am looy seet la am na yoo xam ne boo leen ñaanee euh, euh, bu ñu la ñaanee il faut nga may leen xam nga te ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy tojee xaalisu réew mi ce sont des gens yoo xam ne dañu am ay euh, kii ay accointance ak ak ñenn kilifa ci réew mi yoo xam ne ñoom ñëpp affinité yi xam nga ça fait effectivement moi man je je bon moi j'aimerais bien que loolu mu nekk mais j'aurais comme l'impression que ni Euh, j'aurais comme l'impression que ni mbir mi mbir mi du am du am parce tout simplement wala diñ ko wax nii rek coow li parce que gis nga lu ñuy lijjanti dëgg-dëgg coow gi du jëm kaw nii euh, je je ne man je crois que ni bon évidemment man maa ngi leen di bàyyi ñu seetaan ba xam ndax dinañ ko def jusqu'au bout mais li ma waxoon ci régime mu Macky Sall ba la rek je disais que dañuy sonal seen bopp je disais que du dem fenn ñu ne wuy machin wooy gars bi boobu sax bon régime Macky Sall. non hmm? euh, euh, ak euh, président pour man erreur yi mu def yooyu la ñuy di jàngee pour bañ ko def mooy waral yàqamti bi gars yi di wax ñuy jël temps parce que justice moom procédure yenn saa boo defee benn erreur rek Cheikh Omar mu ngi koy wax léegi mën na mën na la topp toute la procédure donc fii nii du créé. non waxuma créé la. waaw fii nii c' est même pas c' est même pas. non la créé a été pour ñu indi ay problème politique créer ñenn. man man je ne dis pas bàyyi leen ko mu yeggali waaw Karim Wade est eh, innocent. Mm, man lu ma gëm mooy la culpabilité de Karim Wade ci passer passer alalu askan pour man c'était flagrant mais Macky Sall a utilisé un très mauvais instrument juridique pour le caractériser parce que moom da doon politique jéemul woon xeex l'enrichissement illicite jéemul woon xeex détournement mais moom xeexu politique la doon def. Mm. lii nag dafa bokkul ak loolu déjà c'est euh, ay ay ay rapport lii nii nee naa ay plainte collective ñoo ñëw. oui jëm fenn. ay plainte plainte. ñëw ñëw oui Aliou fi mu waxee mooy ci finalité bi. oui nañu tàmbali mais est-ce que sur le long terme na mën a jox. la rek affaire d'impression je pense le contraire. finalement quand je le disais avec le régime de Macky aussi même bu fekkee ni ça c'était lié directement ak euh, juridiction boobu doon doon doon je je la même chose parce que xam nga lu tax parce que suñu réalité euh, socioculturelle moom moo euh, intrinsèquement liée à la manière de gouverner. le pays et ça fait qu'effectivement on n'ose pas des fois toujours faire ce qu'on veut bu ñu koy coow nii xam nga li ñu war a def mooy faire en sorte que fii li fi nar a xew parce que finalement boo naroon dellu ginnaaw nii mais autant autant y aller jusqu'au bout autant sax li nga wax ni ci Karim Wade ñu defaat ko xool ndax Karim Wade effectivement xaalis boobu mu sàccoon am na wala déet quand je quand j'ai les leviers du pouvoir je peux toujours vérifier ci à quel niveau la Macky Sall avait raison ou à quel niveau la Macky Sall avait tort euh, par rapport justement à ces vingt cinq personnes yi nga xam ne ñoom la ñu cité woon et que le procureur Aliou Ndao bokkoon ci à la limite rapport yi génn ak la ñu joxe. ñu dem jusqu'au bout révision procès la Karim woote woon. waaw loolu xam nga yooyu nañ ko am na lu mu wax nag dëgg la par contre c'est-à-dire parfois du du sax euh, état bi wala dara mais c'est nous ñun suñu bopp ñoo def obstruction à la justice. bien sûr peut-être que ñii ñuy wax. ñëpp euh, ñi ñaan intervention man li ma li ma gëm mooy génnuñ Sénégal. mais mais man loolu laa gëm mais man benn souci laa. te léegi dañuy dem ci benn. mais bàyyi leen mais bàyyi leen Aliou ñëw. ci ci ci waaw mu yeggali comme ça ñu ñëw. la machine à remonter le temps dem ba ci Senghor ba ci Abdou Diouf mais si temps bi de gouvernance entre 2012 et 2024. mais ce pays c'est que la Cour des comptes a produit comme rapport. vous savez pourquoi mais ces rapports là ne vont servir à grand chose vous savez. pourquoi ce pays là mu mu mu ci ce niveau de pauvreté là hmm. c'est parce que depuis trente quarante ans ce pays a été pillé hmm. et franchement ñu dañuy wax ne ay les français les machins euh, là quand ils signent les contrats là ils défendent leurs intérêts hmm. les intérêts de leur propre pays c'est juste que c'est nos compatriotes qui ont eu des facilités de signature parce que dañu yoroon nekkoon dans la haute gouvernance de ce pays là ils ont fait des choses Euh, voilà ci ay paradis wala dans les banques suisses ak yu demee noonu xam nga ñoom ñoo ko def ñoo ñun la en réalité ñun ñoo on a sacrifié nos pays pour nos propres intérêts et les intérêts de nos de nos ñi nga xam ne tout simplement c'est c'est tout te loolu loolu pour il faut faire en sorte que léegi def ne nan la ñuy def ba loolu bañ a amati parce que li ñuy wax nii xaalis nga wax ni nga koy jëlee mais Karim Wade vous êtes sûr que Karim Wade est un homme très riche il il waxuma laa wax ñi ko waroon nekkoon aux gens ci ci wetum am na histoire u AS ASS boobu. AS ngeen fàttaliku. xam nga les gens ils sont boo demee ci yeneen côté aussi c'est pareil regardez ICS Mboro bi comme comme euh, comme nan lañ ko ñan lañ ko jaayee ils l'ont ils l'ont ils l'ont bâclé à à moins de cinquante milliards. ils l'ont bradé à moins de cinquante milliards mais pour quel intérêt yow dafa dañuy jël lu toll ni ICS nga koy jox ay indien pour cinquante milliards depuis loolu ñaata la kaay ils doivent plus de trois cent milliards maa ngi koy dégg ci ci ci ci ay euh, loolu lu mu tudd. redressement euh, ci ay ay ay taxe redevance minière redevance minière. mais léegi yow sur sur la gouvernance de Macky sur sur la gouvernance de de de Macky je veux dire de 2012 à 2024. mais parce que mais yow gisoo fi round wala gisoo fi lenn loo xam ne war nañ ko leeral. mais lan la wax nee na le pays a toujours été pillé. mais le pays a toujours été pillé. c'est-à-dire dama bëgg man passement dina ma mere ñu fixé wu. c'est-à-dire sujet bi lan la Cour des comptes génne na fi ay rapport mm-hmm. IGE président activer na IGE. pour saytu lu mot soixante-dix agence ak ay direction man j'ai envie de dire. mais mais léegi bu ñu ñëwee day mel ni. Euh, ci diggante bi ci diggante bi de 2012 à 2024 c'est comme si rien ne s'est passé dans ce pays. c'est inimaginable. c'est loin de dire ça non c'est évident non c'est une coutume xaar fii yow. ma xam ne non man xam lan lay xaar. Hmm. man dama ne lii ñuy lijjanti nii lu tax mënuñu ko lijjanti non xam nga parce que li daloon ñële ñoo daal ñële ce n'est pas parce que il n'a pas la volonté de le faire mm. à un moment donné dafa ay réalité moo la wax naa la ko socioculturelle yoo xam ne ça fait qu'effectivement ñun ça nous empêche d'avancer et vous verrez bien fii ak déwén bi ma koy wax laa wax ak ci régime Sall c'était la mission Diomaye il peut avoir des bonnes intentions mais gis nga il y a des facteurs bloquants qui font qu'effectivement on ne peut kii cession euh, des marchés la marché ni ñu leen di passation des marchés mais c' comme ça que les yow tu es spécialiste dedans. Hmm. mais gars ni ñu la koy joxee c' est même la peine xoolal le cas de Guédiawaye la. Hmm. Guédiawaye lii c' est lii c' est lii c' est lii moom mais est ce que gis histoire moom avec euh, Mariama Sarr mais affaire bi treize milliards lañ ko bëggoon jox benn waaye am na kenn ko xam ne il est le mieux disant à neuf milliards ñu ne ko doog de ba mbir mais mais loolu bu ma ñëwee je règle le problème parce que Guédiawaye pour man li Salim Malang dañ ko war defar exemple bu ndaw la rek de parce que mënuñu fi joxe ay exemple yu bari mais boobu moom moo ñëw sama bopp. waaw mais mais pas mal. moom la bi dama dama jàpp ne dafa xaw am euh, un peu d'amalgame gis nga kii li muy wax ci ay rapport ak yooyu loolu ñëwaguñ ci de. en fait li xew nii nii ça n'a rien à avec des rapports. bu doon loolu kay traité la ñuy jëriñ non c' est euh, que euh, kii euh, Cheikh moom moo tudd affaire 70 yi. waaw man je pas de rapport. je parle en général. quand on sonne il est dans la généralité. moom selon sa conviction. mais parce que. daanoo mais mais mais léegi xam nga bu njëkk. xam nga bu njëkk Aliou maa ngi jéggalu baal ma rek mm-hmm. bu njëkk mais interpellé nañ ku bokk ci coalition ah, ah, Diomaye ah, xam nga bu njëkk. bu njëkk eh, de tout de tout de toutes les alternance de toutes les alternances dinga nga wut kooko askanale sauf cette de toutes les alternances di nga ut benn puissance boo ko boo ko askanalee ne diw moo nekkoon ci ginnaaw sauf cette alternance y a alternance pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu ne alternance bi am c'est le peuple qui est derrière et ce que Dieu veut ce que ce que ce que ce que ce que ce que le peuple veut Dieu le veut jëlee fa le président le fa Aliou fi muy waxee mooy par exemple quand quand quand Marius bi mu wax naan on a fal nañu Diomaye fal nañu Ousmane Sonko mais ba tey le système est là. waaw d'accord su ko wax mooy réalité bi ngay wax. non non non xaaral pas mën nga yor mën nga gouvernement dal ci li nga xamante ne système ah, la système la système mun a gu fi jóge brusquement parce que déjà. en conseil des ministres bu ñu génnee décret ne nommé nañ Cheikh Omar Talla dafa am fu muy jaar day tegu ci yoon IGE day ñëw ci état ne ko ñi fi nekkoon de daan nañ ko doxalee nii. léegi nag Aliou danaan la Aliou danaan la su ñu namee rek xaaral rek suñu niveau de nuisance le système bi fi desagum balaa ñu ko fay jëlee. jëm ci initiative ak yéene yi nga xamante ni les nouveaux pouvoirs publics am nañ ko parce capacité de nuisance boobu ba mu ngi fi mooy dañut léegi wax ji mooy. Pa Ousmane waaw capacité de nuisance. boobu noonu bu daanoo ci kaw initiative yi ak yéene yi. am na loo xamante ni am na loo xamante ni bés bu ko jomaay bés bu jomaay daanoo ci piège boobu. Hmm. di nga gis yenn sénégalais yi ŋàññi ko. ne il n'a pas respecté la loi. Hmm. dañ leen waxante dëgg. dëgg la. trois mois moo jàllagum. Hmm. ku taxaw naan système bi jógee na fi éradiqué nañ ko dem na fi carrément da nga c'est-à-dire nañ. quand même aussi quand aussi tamit euh, am na loo xamante ni. ku gis ñi volonté bi ñuy demee di nga xam ni ci kàttanu yàlla ak mbaaxam fii ak ñu naan un an. Mm-hmm. dootuloo gis benn nit boo xamante ni c'est un nom du système ñu naan dénk nañ ko benn poste de ah, responsabilité fii ak un an beneen bi mooy Aliou fi ma buggoon a wax mooy ñii kenn mënu leen ñaan ku dul le peuple sénégalais le peuple sénégalais moo mën a taxaw ne leen bu leen def dara ñu bañ ko def. déedéet dañ koy def. peuple bi mën na juum. lii loi bi la fay def ah, loolu c'est un autre niveau. dama bëgg nga dégg fi may waxee. peuple Bambey nee nañ dañ bàyyi dama bëgg nga dégg fi may dama bëgg non dama bëgg nga bëgg nga dégg fu may waxee. koo xamante ni askan bee ko fal te askan bi bi mu koy fal ci base yu claire la ko fal. Mm. daf ko askan bi dafa am lu mu jooy. ba pare sas ko. que taxaw jël engagement ne li nga jooy nii dinaa fomp say rangooñ askan bi ne ko kon acca. xam nga ni askan boobu du ne di ñaan ñooñu. foofu laay bëgg a waxee. d'accord donc amul ku leen di ñaanal ñeent. bëggoon a gis nga euh, maa ngi lan moo tax mbir yi nekkul ci police ba foofu noonu ca Bambey dem ba Thiès. mais parce que saa yi euh, euh, mon ami Modou Ndiaye de Bambey TV nga xam ne lu xew foofu moom la ñuy xaar. bi nee na du ci dugg xamu ci nangam parce que askan bi moo nar a delluwaat contre moom parce que gars yooyu noonu euh, maanaam dóor bi li muy bari bari bari bari mais gars yi la koy euh, c'est apparemment d'après ce que les gens ak a yeewoo noonu ci maye ñëpp nekk ay gaay mais Kaolack am na benn responsable bu ñu jàppoon du régime socialiste. bi war di ñëwee ñuy def audit dafa ne man. li ngeen may toppee ni dama ko sàcc. waaw askan bi laa ko delloo loolu li muy wane li Aliou wax sànq. loolu la loolu loolu c'est vrai c'est suba. benn bàjjenam indi bongo maan. ñu ne sa ko liggéey. waaw mooy jàpp ni pouvoir jouissance la dañu jàpp ni politique. nan ngeen a toogee yenn saa yi ñiy daw sax ci ay notable kii Serigne la ñuy laqatu. la ñuy laqatu oui xam nga euh, le peuple non son peuple c'est c'est c'est Euh, quelque chose boo xam ne munuñu ko mënuñu ko munuñu ko c'est c'est quelque chose d'abstrait euh, euh, waaye bu fekkee ni da ngay da koy xool nii rek nii nii si lan peuple dans le sens euh, sa contenance par rapport à une nation da nga vous vous rendez compte juste mooy mooy mooy ce peuple là composé de ay êtres humains ñu doon ay sénégalais ils n'ont que leur intention ñoom seen hmm. intention rek la ñu am maanaam bëgg nañu bëgg nañu ci génn bëgg nañu dëkk bi jaar yoon mais xamuñu lan mooy yoon véritablement bëgg nañ dëkk bi euh, ñu lekk ba suur mais fi li fi ñuy jëlee lekk bi euh, seen yoon nekku ci euh, bëgg nañ ñu bàyyi sàcc ci réew mi mais ni ñu ko war a defee ñoom seen yoon nekk si nañu am benn impression rek dans leur tête que ni sàcc amatu fi mais en réalité vous savez l'homme par essence nit nit ci boppam dafa dafa il est de nature corruptible nit nit ci boppam day am ay tentation parce que des fois sa xel nekk ci benn affaire mais dafa am loo xam ne moo lay empêcher nga def ko mooy cette sanction là mais quand nga ne da ngay dem koqi ay parce que gars yi bu ñuy sàcc du ñu jël xaalis sàcc ko nii jël ko jël ko dugal ko seen poche wala jël ko non yéen dafa am fu jaar dafa am yoon bi muy ah, jaar système dafa am système boo xam ne man loolu laa bëgg expliquer suma euh, loolu loolu loolu pour lijjanti ko ñaari ñaar mooy tax mu gaaw mooy surtout benn quoi principalement mooy il faut que nous soyons dans un régime de ligue de rigueur ba nga xam ne dañuy forcer nit ñi foofu démocratie du fa am dëgg dëgg dëgg ñu forcer nit ñi ñu forcer ñi ñu def ko par force bu boobaa euh, ce régime militaire rek moom moo ko mën a def ba nga xam ne kenn du ko ñeme il faut nit ñi ñu ragal pour loolu wala ñu créer un système boo xam ne aussi ci wàllum démocratie et encore suñu niveau de démocratie bu poussé rek xanaa xamoo plus y a la a de la corruption ou des tentatives de démocratie bu ëpp liberté dafa am yoo xam ne daf koy créer dafa am ay ay ci ci lay créer ay euh, comment dire lux lux mbuuj lux mbuuj ci la ñuy créer ay ay ay sàcc ci la ñuy créer ci am ay intentions yu bon et cetera ce pays là les gens là qui se sont enrichis mais comment vous pouvez expliquer des gens d' abord rek li ngeen war a njëkk wax. wala hmm. ñuy wax ay waxu gox yi ok nañ ko def nañ dem seet gars yi bu ñu amee possibilité bi xoolal li ñu mujjee ak tey bu njaay finalement ah. mais dañ dañ ko laaj benn somme après mu jeex. ñoom ak ñoom après voilà le reste après ils veulent plus se prendre la tête Karim Wade on lui a demandé les 138 milliards est-ce que l'État avec la continuité bi mu ñëwee laaj na ko 138 milliards yi milliards def mais non xam nga continuité mooy am état continuité mais Karim bi mu ñëwee ne wax laaj ko 138 milliards yi ñu yi ñu ko yi ñu ko kii yëpp mi ngi ko jugé dañu ne 138 milliards moo war a ak lu mu de créé baax na ak baaxul loolu waaye léegi cent trente milliards est ce que dina ko fay wala déet te gëm naa ni man du ñu am plus de cent trente mën a nga jëlaal ay da njong ko benn weccet foofu mu jëli ko euh, euh, tay mu njaay jël xam nga ñu xool ñi xaw a quelques petits yoo xam ne ñi am ay vingt mille euh, cent millions ñi deux cent ñu dajale ko du mat sax cinq milliards ce n'est pas vrai xam lan la ñu war a def hmm. mooy fexe ba gars yi empêché leen léegi ñuy mën a dugg di sàcc alal empêchement boobu nag. loolu nan lañ koy defee loolu nañ ci waxtaan. ñun ñëpp mën nañ ci am suñu xalaat parce que je vous rappelle une chose gis nga sa pays là. Hmm. Euh, euh, c' est facile nga gis nit nga gis nit ki nii parce que man man man Pape Ousmane man mun ma imaginer réew mi la nga yeewu suba teel rek yow nga am ay ay ay milliards parce que vous avez un marché yow nga yeewu suba teel rek yow Pape Ousmane da nga yeewu rek. yow Pape Ousmane nga ne nga nga ne nga ay milliards parce que vous avez gagné un marché alors que un milliardaire man pour man il doit avoir au moins un certain nombre assez conséquent d'employer un milliardaire et c'est sur le temps nga war a nekk milliardaire parce que vous avez gagné de l'argent vous avez fait des bénéfices au fur à mesure du temps au bout d'un certain ay 10 ans vous retrouvez avec quelques milliards mais Sénégal ngay gis pour benn mandat benn waay ñëw il se retrouve avec des milliards léegi comment faire hmm. comment faire pour que loolu bañ amati xam nga hmm. loolu mooy régler problème hmm. parce que bu fekkee da ngeen jéem a sanctionner gars yi ñu récupérer ay weccet mu jeex après les autres feront la même chose mais il est où problème ce n'est pas à ce niveau là qu'il faut résoudre justement les difficultés qui sont liées à la corruption dans ce pays là li ngeen war a def li ñu war a def mooy waxtaanee ku nekk xalaatam parce que gis ñuy tabax ay ay immeuble ci réew mi xalaat ni seen dañ mais oto te oto yi ngeen gis nii chaque jour ñu def ko ci VDN bi ay oto yiy jaay ak yooyu mais ces gens là vous pensez que ils ont gagné leur argent yéen franchement yéen seen diggante ak yàlla seen akulaay taala wax leen rek seen dëggante yàlla milliardaires yi ngeen gis nii l'année dernière dem est-ce que ñeme ngeen dem laaj leen seen lan la fay euh, euh, impôt daaw ces milliardaires là que vous voyez là dans ce pays là laaj la laaj la leen ñoom laa wax seen revenu am na am nañ impôt revenu am na Sénégal il me semble waaye léegi ñoom milliardaire politique yi ngay wax wala mais tout le monde parce que ñoom ñooy lié politique xam lu ñu def ñoom daleen boo gisee liquide di am thésaurisation am dans ce pays là les gens ils gardent beaucoup d' mais c'est parce que gars yooyu ñoo leen jox xaalis euh, ci marché yi marché bi ma lay xool marché bi ma lay marché marché marché bu gën a ni lycée euh, euh, kii nu mu tudd. lycée lycée bi moom laay est lycée d'excellence fu mu toll. ngante yëpp fa lañ jógee. waaw lycée boobu yéen yéen ñuy xëccoo di xëccoo. ba régime daanu pour benn histoire wu ñii nee nañu treize ñii nee nañu neuf. Euh, kenn ki ne neuf ko retiré wul mu ne moo bañ finalement mbir mi tribunal la mujjee ba lycée ba kenn tabaxu ko. Hmm. waa léegi loolu mais yooyu doone ko lijjanti ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay marché qui se font dans ce pays là maa ngi dégg ay affaire yu garaaw même cas wu Cheikh bi maa ngi dégg ay affaire yu garaaw mi marché yi koy joxe gré à gré moo indi problème yii yëpp les gens ils gagnent yooyu boo leen ko réligné wul déwén man ma dégg naa ay histoire ay rapportam dégg naa fa ay yoo xam ne je me dis que te loolu mi ngi nii nii ak régime Diomaye bi je sur le Coran maa leen koy wax ni que man xam nga parce que xamatuma leneen laay mën a wax pour ñu gëm ma am na yoo xam ne mi ngi fi xew nii ci yenn passation de marché dans ce régime là kilifa et ce n'est pas wax wax ko non du ko xam nga pour le moment. non ah, c'est d'alerte nga non je parle amoo ci la leer non de non non de xam non. Ah, ah, amagoo ci la leer non de dama ne dama ne xoolal non dama ne am na yoo bu dee daaw na ngom Sonko la daanaka nee na waxul dara ak Sonko 2017 la ko gën non non dama ne ma ne la non xool ma ne la waxee waaw loolu laa wax su ma waxee rek jàppal ma ne la laa wax ay ay marché yoo xam parce que am na marché yoo xam ne ci régime u ab euh, kii la woon régime u Macky Sall la woon hmm. marché yooyu mais gars yi koy géré ba léegi ni ci régime u kii arrêté ban ban ban ban ban ci lu ci leer waxam non jub jubal jubal mu terminé marché yi nekkoon déjà sama wax na ngeen ko coupé plusieurs plusieurs fois quand même. bu wax loolu laa jox kàddu ma ne non dama ne li may wax nii déwén danañ ko waxaat. on va fatiguer. li ñu war a def mooy faire en sorte que yooyu bañ fi amati. que marché ay marché dix quinze vingt milliards yooyu moom moo tax mais on ne peut pas être milliardaire yeewu suba teel mosoo am xaalis nga jékki-jékki nekk milliardaire. pour être milliardaire il faut du temps pour ça. ñi di tabax fii ci tali ñooñu ñooñu ñooy tax. ñooñu ñooy tax état di daanu. parce que ñooñu du ñu fay ay impôts. xaalis yàgg naa ko wax dañ duñ ko jëlee ci garab. kenn mënu ko witt dafa am foo koy jëlee foo koy récupérer da koy leb wala nga dajale ko ci sa impôt impôt réew donc ñii nekk ci tali bi Sénégal am na ko ko wax léegi yaa ko wax kilifa ces gens la bitim réew a raison mu ni bi xam nga lan la gars yi mën nañ ko génnee man personnellement am na ñoo xam ne boo leen xoolee daf lay wóor ni laa lay wax ni booy boo ñaari 4x4 boo ko amee daa boo amee benn 4x4 daaw ren nga am ñetti 4 x mais yow sa patrimoine yow ñaata ngay fay impôt ci réew mi. say taxes lan la c'est quoi man am na yoo xam ne bu ñu ko demee seet danañ ko gis il suffit juste que ñu contrôler affaire yooyu yooyu nag ñaar moo koy mën a def surtout un régime de rigueur ñun démocratie yi baaxul trop si ñun. c'est pays un pays à construire warul am démocratie à l'instar des démocraties occidentales pour ñu tolloowuñu parce que ñun dañuy tabax dañuy war a surveiller gars yi et être extrêmement rigoureux xam nga parce que bu bu parce que ñun suñu démocratie baaxul man bëgguma xam nga man ay élections yi boo gisee ma leen wax ay mandat machin nañu jël kenn ku ñu wóolu je teg ay nit yu baax nit ñu intègre di surveiller lépp verrouiller lépp ba kenn dootul mënti sàcc. waaye li ñu jot sàcc. wallaay maa leen ko wax da sonal seen bopp. kenn du si jël dara. d'accord merci oui. ay wala ay wecc yu sew xam ne tekkiwul dara par rapport ak enjeu. on a 7000 milliards de budget boo si gé boo demee rajale ay nit ba ñu génn